sur ça, on retrouve chez les femmes qui ont un cancer du sein un stress, souvent, souvent, je dis pas toujours, souvent un stress conjugal. Conjugal. voilà donc euh, stress conjugal <laughs> bon ku nekk xam na lan moo ci mën a nekk Alors, je disais que le seul moyen de prévention du cancer, faut pas attendre la douleur, faut pas attendre de ressentir des choses. À partir de 40 ans, allez faire une mammographie. On le fait tous les deux ans ou tous les trois ans. La LISCA, tous les mois d'octobre, subventionne les mammographies avec les radiologues privés. pour que mu accessible à quinze mille francs et comme je vous ai dit bu fekkente ni am nga histoire familiale surtout au premier degré la mammographie elle est gratuite on donne ça gratuitement et de plus en plus il y a des entreprises qui subventionnent mais mammographie c'est ça permet de détecter la mammographie une tumeur boo xam ni médecin lu mu ay ay ay lu mu la mënu ko daj mammographie bi moom à ce stade-là une tumeur qui fait moins de un centimètre mun na ko détecter et en ce moment-là on fait un traitement conservateur on n'enlève pas le sang il n'y a pas de chimiothérapie et la survie est presque à 100 pour cent donc la personne va guérir alors la mammographie c'est cet appareil là donc la femme dañuy teg sein bi ci sur un plateau ñu comprimer ko tuuti et on fait les radios ce qui permet de détecter les lésions maintenant l'auto-examen c'est-à-dire que femme bi di examiner euh, weenam di ko làmb li ñu ci préféré mooy après les règles chaque mois de préférence sous la douche on dit quand boo savonné ça glisse bien et nga teel ko commencé pour mën a détecter très vite parce que boo miinee consistance sain yi du benn boo miinee sa consistance sain bo amee modification bu ndaw di nga ko di nga ko sentir donc dès vingt ans et là également euh, mais il faut que la tumeur fasse plus d'un centimètre balaa nit di ko mën a di ko mën a daj mais c'est mieux que rien c'est mieux que rien. Ça permet de faire un diagnostic précoce et ça ne coûte absolument rien. Sinon, malheureusement, nous encore, on voit des cancers. Nous, au niveau international, nous avons un cancer, ça existe toujours. Ben, nous, les femmes viennent à des stades, à euh, des tumeurs, euh, quoi voilà ça c'est ulcéré dafay def góom ça sent mauvais et tout ça nit ki il faut nga defal ko antibiothérapie il faut euh, elle n'a plus de sang nga transfuser ko te pourtant doo ci am gain bu bëri ça coûte très cher le traitement te du am presque résultat donc c'est ça c'est un vrai problème voilà je termine c'est la dernière diapo alors ici je vous reviens sur le cancer du sein cancer du sein amul benn possibilité actuellement pour détecter li nga xam ni mooy jiitu cancer bi ñëw ça n'existe pas par contre cancer du col il y a la possibilité de détecter une lésion précancéreuse loo xam ni avant cancer bi di ñëw la donc moo gën a euh, moo gën a neex euh, xeex il y a les stades précoces on insiste beaucoup sur que jigéen ñi di def dépistage col frottis si vous avez la possibilité de faire un frottis sinon les campagnes de dépistage de masse qu'on fait hein, il faut se faire examiner ça permet de détecter les cancers précoces et à ce stade-là on en guérit dañ koy faj ak sans aucun handicap Euh, sinon, malheureusement, on est encore à 70 à 90 pour cent de diagnostic à des stades avancés. Et à ces stades bon, on a vu, euh, voilà, euh, même des, des gens qui sont partis se faire, se faire euh, euh, traiter ailleurs, mais après, il n'y résultat. Donc, le diagnostic précoce et le dépistage, c'est là, ce sont les choses les plus importantes. Hein? Je m'en arrête là. S'il y a des questions, je, vais, je vais y répondre. Euh, je demanderai que ñu tàcc ko bu baax parce que lim fi àndil ci ay information du ñu wax ni euh, lépp la ñu xamoon jàng nañ ci lu bëri bëri bëri bëri bëri mais balaa may wax ñu tàccu professeur Mamadou Diop je voudrais qu'on ñu def un standing ovation à Moumi Dani Gueye Seck moom mi nga xam ni bésu tey jii nii moom la ñu ko jagleel di ko ko fàttaliku ko rendre hommage je voudrais que toutes les femmes ak ñi nga xam ni ñoo ñëw fekk si ci bés bi yëpp ñuy tàccu Moumi Dani Gueye Seck mu nekk standing ovation mu nekk suñu hommage boo xam ni moom lañ ko amal. merci beaucoup alors professeur Mamadou Diop moo jiite institut Julio Curie wax na ko léegi mu xamal lu bëri ci cancer du sein xamal ñu lu bëri ci cancer du col de l'utérus le thème de la journée internationale des femmes bu ren moom mooy investir en faveur des femmes mais ñun dañoo choisir Au lieu de parler du thème de la Journée internationale des droits des femmes, qui est investir en faveur des femmes, nous avons choisi de parler des cancers féminins. Parce que tout simplement, quand une femme n'est pas en bonne santé, ça sert à rien d'investir sur cette femme. Quand cette femme n'est pas bien dans sa peau, ça sert à rien d'investir sur cette femme. C'est un investissement nul. moo taxit ñu ne ñun bésu tey jii nii au ñuy waxtaanee ci thème bi nga xam ni moom la ñu jàpp ci journée internationale des droits des femmes ñun li ñuy waxtaanee mooy cancer les cancers féminins mooy cancer yi nga xam ni mooy faral di dal jigéen ñi. téye leen ci biir kër yi lompoñ leen tàggoor leen ak seeni borom kër tàggoor leen ak ñi nga xam ni ñoom ñooy seeni ay doom mu nekk ay cancer yu silencieux yoo xam ni duñ ci faral di bàyyi xel. moo taxit professeur teewaayam tey jii nii ci journée bi mu nekk lu am solo parce que du sensibilisation kese lam ñu def balaa ñuy kontaan professeur mooy bu ñu jógee ci journée internationale des femmes bii ku ci nekk dinga ne war naa defi frottis war naa defi mammographie parce que prévention boobu moo ñuy aar te mooy taxit ñu mun a augmenter suñu espérance de vie alors dans le jargon on dit quand il y beaucoup de questions ça veut dire que les gens ont bien compris quand il n'y a pas de question ça veut dire qu'ils n'ont pas compris bu dee comprendre nañu li mu exposé ci cancer du col de l'utérus ak cancer du sein dañuy poser ay questions bu ñu posé wul ay questions rek mooy ne comprendre ñu dara donc on va prendre cinq questions ndax dañoo tardé ci euh, li nga xam ni moom mooy euh, programme bi Euh, balaa ñuy jël question yi je voudrais saluer la présence de Tata Khoudia moom moo ñëw représenter la famille de Feu Momi Seck di saluer également la présence de Tata Souadou Goundiam moom i tamit bokk ci famille bi ah di leen di jéggalu tamit président Bougane Gueye Dany il aurait aimé être avec nous ci bésu tey ji comme il a toujours eu à le faire ci précédente édition 8 mars dugal na ci loxoom bu baax a baax a baax ndax bu ñu yànjee tey jii nii mën a toog ci bâche bu mel nii moom moo ñu dooleel nekku fi mais mu ngi suivre ñu bëgg ñu tàcc ko bu baax gërëm ko nee na bëggul yàq suñu feet bëgg na ñëw teew bokk ak ñun journée bi mais bëggul yàq suñu feet ndax ni bi fi muumi jógee soriwul lool yàggul lool mu ngi ci xol ba tey mu tiis loolu ci moom mu nar a ñëw teew jàkkaarloo ak ñun ñuy sargal ki nga xam ni mooy soxnaam loolu dafa tiis lool ci moom jéem na ku ko déglu tey ci suba ci tës di nga xam ne naqar gaa ngi ci moom ba tey c'est la première fois ñuy def la journée internationale des droits de femmes des femmes du groupe Boyg te Bougane ñëwul teew muy excusé wu ci ku nekk si ñun yebal nag madame Fatou muy directrice du développement moom mooy jël kàddu ci tuuru Bougane bu ci kanamee suñu paree ci conférence bi donc sans plus tarder on va prendre très rapidement cinq questions euh, permettre au professeur de répondre à ces questions et ñu wéyal programme bi voilà ya Seyda bu amee kuy poser question na ñëw fii ndax euh, conférence bi c'est en direct également sur Sen TV ak sur Zik FM Euh, yaa Seyda ñëwal fii ñëwal fii ñëwal fii <laughs> d'accord damay dégg ñu ne euh, huile d'olive boo ko dee du ci sa kii yi doo am cancer. nee na dafay faral di dégg professeur on donne pour prendre les questions avec un stylo euh, un stylo Pauline un stylo voilà yaa Seyda nee na dafay faral di dégg euh, ñuy wax ni huile d'olive bu ko jigéen di faral di diw euh, ci awraam ak ci weenam du am cancer. Fatou Fatou njaay Ndiaye. Bonjour professeur ñu ngi lay nuyu bu baax di nuy également euh, toutes les femmes di leen souhaiter une bonne fête du 8 mars di ci rendre hommage à Momy Dani Seck sunu xel nekk ci moom ñu koy ñaanal. yàlla na sunu borom yeesal yërmande ci kawam li nga fa wax c'est important daf ñuy indi ci ne sànq li ma doon wax ak Nafi Dieye euh, mu naan ma nit amul benn noon bu dul feebar feebar bi euh, bu la bu la gañee je pense que loolu moom mooy noon dëggantaan euh, que dañu ko dañu ko war a dem fàggandiku mais non ma question j'ai écouté tout Euh, bi ngay def exposé ci li nga xamante ne moom mooy indi feebar bi vous avez parlé des femmes de plus de cinquante cinq ans que ne ñoom ñoom ñoo ci gën a nekk des femmes à à risque alors la question moom mooy on parle du cancer euh, de triple à triple négatif je pense que le cancer à triple négatif touche les femmes de 18 ans même de vingt ans de 25 ans à 40 ans ñoo xamante ne ay xale la ñu kenn xalaatu ko woon ñu am euh, cancer à triple à triple négatif euh, euh, boobu noonu waxoo ko ci j'aurais bien aimé nga ñëw ci le cancer à triple négatif puisque j'avais parlé du du cancer du taux de progestérone très très élevé bi nga xam ne dafay dal jigéen ñi nga xamante ne dañuy teel a gis pot mais beneen question bi mooy est-ce que aujourd'hui une femme boo xamante ne toog na ba am 35 ans ou plus Euh, musul am grossesse euh, taux euh, de de de de am li nga xamante ne moom mooy cancer bi dafay élevé parce que c'est la psychose ci yenn jigéen ñi bon je veux pas je personnaliser mais c'est la psychose ci ci yenn jigéen ñi au-delà de cinq ans dañu koy def un un un mauvais souvenir maanaam dañu naan jaratu ko parce que mën nga am risque am cancer du du du sein ce sont les deux questions vraiment qui qui me préoccupent.

qui a plus de 50 ans ou est-ce qu'elle peut continuer, elle peut aller faire la mammographie et le frottis Quand une femme a plus de 50 ans, elle est, est-ce qu'elle est toujours à risque Oui, euh, Fama alors, on va prendre la question après de Ndeye Khady Thiam, Fatlay, Mohamed et puis euh, ñu professeur mu tontu parce que il faut que ñu avancer ci ci ci ci conférence bi. merci beaucoup Evelyne euh, ñëpp di nuyu euh, merci beaucoup pour ces explications très explicite mais dañu bëgg xam rek euh, personnellement euh, dañu wax ne que mën nañu euh, auto examen bi palpiter suñu sein et pourtant buñ ko laalee dafa am benn boule bu ñuy sentir loolu naka lañ ko mën a jàngatee ak boulu cancer nan la mën a mel parce que boo làmbee comme li nga wax da ngay daj benn bul donc bëgg nañ nga leeralal ñu foofu noonu aussi da nga wax li nga am te moom mooy consultation précoce Euh, stade avancé ak stade précoce naka ngay woowee stade avancé ak stade précoce boo côté teelee gis ci six mois boo jógee mën nga am chance survie wala sur un an wala boo ko gisee cinq ans après d'office li nga xamante ne euh, peut-être tu vas en la vie bëgg nañ nga leeralal ñu ci loolu merci. Ndeye Khady Thiam Fatlaye également si vous pouvez oui. Je On, on la parole. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di ziare suñu mama yi euh, di jaajëfal bu baax euh, docteur professeur euh, tey jii ñu bëri ci jigéen ñi ci psychose la ñu nekk ci lu jëm ci wàllu cancer nga am ko nga bañ ko am mu nekk sa famille mu bañ ci nekk te itam euh, euh, ak jumtuwaay yu xarala yi ñu bëri information day dawee noo xamante ne à chaque fois lu nee ñu ne la day faj cancer ñu ne la tey boo jëlee ndox bu tàng nga def ci citron day nekk eau alcaline soo ko naanee day éliminer cancer boo bàyyee lekk sucre dootoo amati cancer soo jëlee euh, xolitu ananas nga baxal ko naan ko mën na la dimbali tey jii dem nañ ba euh, fu nekk la info di jóge di di di ñu wax ni boo lii doo am cancer ah, te ji yow loolu ci recette de grand-mère yooyu yan lan nga ñu ciy wax te aussi euh, bu ëppee aussi ndax mënul dem jul leneen mel ni ay problèmes mu roño wala yeneen jërë ngeen jëf Euh, merci, docteur, pour cette euh, belle communication très instructive. Euh, vous avez fait part de plusieurs facteurs de risque nga wax nga ko fi mu am solo lool te gis naa ne ñu bari ñun ci ñun mën nañ ne xamuñu ko woon est-ce que vous ne pensez pas tester leçon tester 5 à 3 donc c'est pas mon niveau tester c'est bon je voilà ma voix porte Voilà, docteur, vous avez pas euh, fait part tout à l'heure de plusieurs facteurs de risque, des facteurs qui font partie, euh, je peux dire, du quotidien des, des, des femmes. Mais est-ce que vous ne pensez pas que mën nañ ci dugal euh, le facteur ignorance parce que man ak ñeneen nous nous rendons compte que li ñu fi wax yëpp lu ci bari ñun xamuñu ko woon tey Evelyne l'a dit dina peut-être li ñu fi dégg tey dina tax ñu jéem a jël les devants par rapport à ça. Euh, j'ai aussi euh, une, euh, une question, c'est par rapport à la vaccination des petites filles. Est-ce que cette vaccination-là dafay éliminer, peut-être dafay réduire les risques ou dafay éliminer euh, carrément les risques? Je vous remercie. Euh, je crois micro baa ngi jël papa boo leen mënee ñëw régler ñu micro mais c'est bon mun nga jël ça va en direct. voilà euh, bonjour docteur. Euh, ñu ngi nuy mboolem ko fi teew. voilà ñu ngi nuyu mboolem ku fi teew professeur ñu ngi lay remercie beaucoup ci prestation bi euh, man li ma bëggoon a wax mooy pourquoi Sénégal la sensibilisation contre le cancer ne se fait que très souvent suñ koy déggee octobre ba octobre ni ñu koy def. la majeure partie du temps yeneen jours yi kenn du dégg ku wax wasu waxu cancer xanaa ñi nga xamee ni soxal na leen carrément ñu koy def deuxièmement mooy ci li nga xam ne ni mooy dépistage yeeg traitement yi les termes sont trop techniques parce que bëri na jigéen ñu toog fii tey jànguñu te le taux de scolarisation xam nañ ne c'est faible au niveau des garçons comme au niveau des filles te très souvent ñiy faral di waxtaan ci cancer c'est un français très élevé de termes techniques da nga naan frottis da nga naan ay précancer les lésions précancéreuses loolu duñ ko comprendre pourquoi duñu wàcc ba au niveau de la population du point de vue linguistique pour waxtaan ak ñoom ci làkk yi ñuy dégg pour ñu xam nan la ñuy traiter cancer ak ak ñuy fàggandikoo pour mën ko def parce que dafay xaw a tubaabe trop ci ñoom ba souvent dañ koy daw Mohamed on prend la dernière question Euh, c'est beaucoup de question on prend la dernière question ndax dañoo bokk jotaay bi ak euh, góor yi ñoom itamit am nañu ay questions yuñ ciy yuñ ciy laajte. jërëjëf Evelyne maa ngi lay nuyu di nuyu jigéen ñu groupe des médias yëpp di leen sargal à travers yéen sargal jigéen yi ci àdduna bi yëpp man ak sama question du sama question du gudd docteur lu gàtt la damay laaj rek ndax am na cancer du sein ndax am na cancer du sein bu dul wér. bu dul wér bu dee waaw am na ban type de cancer la voilà c'est cela ma question merci beaucoup merci. Euh, Suki bu micro bi pare ñu mën a jox euh, professeur mu tontu ci question yi nga xam ni moom lañ ko laajte mu am benn bi ma lay yóbbante bokkul naam ci thème bi. parce qu'on parle des cancers féminin mais comme on est dans l'assemblée avec euh, des hommes am na ku ci bëgg a xam cancer du fois lan moo koy gaaw a joxe. Ok. C'est beaucoup de questions. Oui, c'est beaucoup de questions. Je vais essayer euh, je répondre à ces questions-là. Euh, je commence par la dernière. Vous avez demandé da nga laaj. dafa laaj euh, cancer bu c'est pas euh, cancer boobu mu alors. cancer yi cancer yi dañu wuute en fonction de l'organe organe bi nga xam ni moom la cancer bi jàpp dama lay jox exemple cancer du foie par exemple cancer du foie am na stade boo xam ni bu fa tollee